salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet dañu kontaan bu baax a baax saa su ne di ànd ak yéen ak ci seen émission bi nga xamante ni ñu ngi tudd gisee ak alors émission la boo xamante ni mën nañu rendez-vous rendez-vous d'actualité la lépp li nga xamante ni dafa soxal réew mi moom la ñuy waxtaanee alors tey ñoo am invité bu spécial lu tax ma ni dafa spécial ndax gëj ngeen ko gis ah, mu def ay sorties wala sax gëj ngeen ko gis ñu invité ko ci ay palaatu te macha allah euh, xëy na sax loolu dina ci wax raar bi nga xamante ni xam na ko raar euh, mais de façon euh, du ma sax jaar ci tur bi damay bàyyi ko mbokk internet ci Dakarnet ñu ñëw ci yaatal bi maa ngi lay nuyu di la ziar baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi lay ziar di la remercier di ziare waa Dakarnet yëpp mm-hmm. fas yéene am ak yéen benn jotaay waxtaan bu am solo incha allah. alors waxoon naa leen quoi toujours dañu apprécier di nekk di waxtaan ak moom ndax pertinence am macha allah ay analyse am dañu koy soxla muy Clédor Sène alors Clédor lan moo tax dèjà ñu gëj la gis. waaw liggéey moom ma sorale woon Dakar euh, kooku mooy euh, raison bu njëkk bi ñaareel bi euh, actualité bi dafa dafa politique trop ndax élection yi ñu dëgmal te ñun suñu coalition bokkul ci élection locale yi. donc euh, moo tax euh, bu fekkee ni damay nekk ci plateau de télévision yi mënoo ñàkk traité actualité politique te bu yàggee da ngay nuru chroniqueur wala analyste politique te man sama communication ñu bëri xam nañ ni ci ressources naturelles yi ay question économie ak développement la gën a féete que ci ay problème euh, purement politique loolu ko waraloon. Hmm. alors euh, bon mais tey nag dinañ dinañ daal quand ci politique tuuti mais bien sûr. au-delà de ça tam nam nañ say say par rapport li nga xamante ni dañu ko dañu ko bëgg waxtaan alors. Hmm. sama première question mooy hmm. ku nekk dafa war a signé boo xam dafa war a indi jàmm Sonko bi ñu ñëwee ci moom mu ni moom du signé. moom du signé muy mu ni na ku nekk def li nga war a def. Mm-hmm. déclaration waaw ñi ngay ñaawlu dañu comprendre parce que Ousmane Sonko waxul rek ni du ko signé dafa ne. Mm-hmm. violence bi mm-hmm. benn côté kese lay jóge muy côté nguur gi parce que gis ngeen quand même président Macky Sall euh, élection 2019 yi balaa muy àgg demoon na fi benn tukki Paris yóbbu ay Samba Boy ay nervi dëkku jàmbur de France ñu agressé fa ay opposants dóor fa benn jigéen bu ñuy wax Maam seen ak benn euh, ku ñu wax Benzilul di ko di ko saboté naan dafa bàyyi sax mbaxaneem xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku événement yooyu mu déet loolu lu ñaaw la ci président de la république boo xam ni dafa am garde rapproché GIGN nekk ak moom muy voyager ci suñu avion présidentiel ak ay samba ay nervi pour rek ñu song ay opposants yu koy teeru France saa su ne di ko yuuxoo loolu la def tamit euh, bërki démboo Ndiaye fii États-Unis yóbbu ñoom Abdou Diouf mbër ñooñu di di di defante ak opposants yi nekk foofu États-Unis kon culture de violence boobu nga xam ni mu ngi soqeekoo ci chef de l'État mi nga xam ni dafa cautionner les marrons du feu bi Mame Mbaye ak Pape Gorgui Ndong créé mm-hmm. tuddee ko euh, action protection et riposte mm-hmm. euh, alerte plutôt protection et riposte di ko dàkkantele APR mm-hmm. moom ci boppam dafa dafa rafetlu loolu dafa cautionner loolu ñooñu nag ñoo nekk di nekk di tek nit ñi fitna gis nga ko ci tournée bi Fuuta gis nga ko aussi ci événement mars ñu nekk di topp nit ñi di dugg sax ci kër yi di arrêté nit ñi te duñu alkaati duñu gendarme kon ñooñu tey jii euh, su fekkee ni dañuy dem ba di laam-laame ni ñu ngi leen di enrôler police ak gendarmerie kon violence bi ci benn côté la jóge parce que ñëpp gis nañu euh, Abdoulaye Diouf Sarr ñu may ko mu doxantu wër dëkk bi bat Barthélémy Dias alkaati yi téye ko ni ko doo fi jaar donc loolu violence politique la ñëpp gis nañu Ousmane Sonko dem Ziguinchor ñu song ko fa te ki ko song dafa am tur Doudou Ka ñëpp gis nañu ñu mu song ay waa kër Ousmane Sonko te loolu yee fitna la kon pourquoi léegi Ousmane Sonko moom la ñuy la ñuy la ñuy signaloo charte parce que loolu aussi foofu d'accord naa ci communication parce que dafay mel ni kon moom mooy indi fitna moom moo war a signé daal euh, euh, euh, charte non violence mais loolu. yebeel la du naafeex moom baatu naafeex la la jëfandikoo mais man dama gis ni loolu yebeel la sax parce que ñëpp dégg nañu Aliou Dembourou Sow waxoon fi ni na pël yi jël jaasi bu fekkee ni dañu contre troisième mandat defante kook ñi ko contre loolu ñooñu quoi duñ leen signaloo charte non violence euh, euh, mel ni kon. Euh, dañuy njëkkee si. non nañu njëkkee fi fi mal bi jóge maanaam fi violence bi jóge mhm. foofu la ñu war a njëkkee mhm. maanaam ñi nga xam ne ñooy tenir discours bu violent comme bu Aliou Dembourou Sow mhm. ñi nga xam ne ñooy tenir discours bu violent comme président Macky Sall mi nga xam ne tout le temps dafay tëkku askan xam ne ñooy ñooy def comportement yu violent comme Macky Sall mi euh, euh, def tournée ak ay ay ay samba booyam ak ay nerveem mais ñooñu la ñu war a signaloo charte non violence parce que événement mars yi euh, gis ngeen violence bi fu mu jóge nervi yi dañu nekkoon di ci mbedd mii di am na ay élèves yoo xam ne sax dañ leen doon bajat image yooyu ñëpp gis nañ leen kon loolu loolu violence la nga bëgg def deux poids deux mesures ci benn réew. loolu mooy indi fitna kon ñooñu lañ leen signéeroo charte ba pare et puis ñan ñoo yëkkati chart bi ban représentativité la ñu am. cadre unité mais ñoom waaw cadre unité kuréel la rek. mais ñoom ñan la ñu représenté ñan la ñu représenté est-ce que am nañu confiance aux acteurs politiques yëpp est-ce que ay membres société civile lañu. est-ce que ay imam lañu lan lañu loolu yëpp aussi lu jar a définir la. Euh, euh, charte de la non violence day am ay termes de référence charte bi lan la donc Ousmane Sonko nee na moom loolu intéressé wu ko nañ ko ko nangul parce que gis na ni mbir mi mu waroon a dooree mu soqee ko. alors waroon dooree fu mu soxee ko alors gis nañ ne magistrature bi tam dafa dafa am ay changement ay coppite gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Souleymane Téliko plutôt yóbbu nañ ko fi nga xamante ni moom mooy Tamba donc changement yooyu noonu noo ko jàngatee. waaw changement moom euh, day war a am périodiquement ci. ci ci justice. xawul suspect tuuti. Euh, non suspect parce que doyen des juges dafa laax ko. dafa laax waay Samba Sall. ci événement mars yi. Mhm. déggoon ngeen ñu demandé. Mhm. Euh, démission wu euh, procureur de la république. Mhm. loolu bokkoon na ci condition yu ñu tegoon Macky bi mbir mi taree ba tar kon tey ji bu fekkee ni dindi nañu Bassirou Gueye ñun dañ koy rafetlu. parce que quand moom daf fi nekkaloon buur nekkalu fi woon yoon tout temps parce que ndawal buur la gënoon a taxawee que ndawal yoon donc tey jii bu ñu indee keneen mën nañu am yaakaar euh, ni manquement yi nga xam ni amoon nañ ko euh, tawat yi ñu amoon ci ci ci Bassirou Gueye euh, ñu bañ ko am ci moom donc renouveler loolu suñu demande la woon ñun ñun Bassirou Gueye on avait exigé sa démission mm-hmm. wala son limogeage mm-hmm. donc loolu def nañ ko Euh, c' était dans l'air du temps parce que depuis un mois annoncé nañ ko. Mm-hmm. mais tey. Mm-hmm. Euh, lañ ko lañ démb plutôt lañ ko jëmmal parce que conseil supérieur de la magistrature mu ngi mm-hmm. doog a daje parce que moom mooy jël dogal bi. Souleymane Téliko nag ñëpp xam ni affectation am sanction la. parce que am na taxawaay di bu bu bu dëgër di dénoncer li doxul ci justice bi. di ñaawlu li nguur di dugal loxoom ci na justice di doxee. loolu nag mënul neex nguur parce que amuñu autorité ak possibilité radier ko. comme ni ñu rajee Khalifa Sall léegi ñu muté ko Tamba affecté ko Tamba mm-hmm. euh, pour sanctionner ko mais moom tant que mu ngi nekk magistrat rek mm-hmm. fépp fu ñu ko affecté mm-hmm. mën na fa liggéeyal justice mën na fa def liggéeyam alors ba léegi yéen ci seen émission gisaat tey ñu dalal ki nga xamante ni mooy Clédor seen euh, ñu war a dugg ba léegi si li nga xamante ni mooy euh, élection yi ñu jub si nii janvier bi alors ban gis-gis nga am ci euh, ñeent wala sax juróom ñi nga xamante ni ñoo koy xëccoo muy Barthélémy Dias Soham Wardini ak nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr ak nga xamante ni moom mooy Doudou Wade naka nga gisee ñeent profil juróomi profil yooyu ak Mame Mbaye Niang bien sûr. waaw loolu euh, compétition la rek. Mhm. parce que élection moom askan wi mooy décider. Mhm. mais ci wàllum politique. Mhm. nguur gi mu ngi campagnal Barthélémy Dias. parce que comme ni mu lay wax nii euh, fii doo fi jaar fii doo ko def ak convocation tribunal beeg yooyu donc toog nañu lu ëpp semaine boo xam ne moom mooy nekk à une kon day mel ni moom rek mooy candidat dakaar wala bokk moo ci gën a fës. rawatina nag mu am soutien wu euh, ki nga xam ni moo gën a euh, taxaw fi mu nekk nii ci opposition. muy Ousmane Sonko. donc kooku candidature bu sérieuse la. am na candidature bu ñuy occulter tout le temps mooy bu Pape Diop. kooku aussi c' est un homme d' expérience. Mhm. am na wàllu wàllu wàllu Sénégal Soham Wardini aussi dafa bëgg rampile parce que am na ñu koy jàppale parce que même Khalifa Sall ci mujjantal gi lay doog a fësal Bart euh, mhm. jàppaleem Barthélemy mhm. donc euh, yéex na leeral. mbir moom yéex na yéex na yéex na décider loolu. donc loolu mooy compétition bi am Dakar. du candidat yu bëri. pour une ville comme Dakar comme la euh, la capitale donc candidature yu bëriwul donc choix wu yi dana yomb. Mhm. alors candidat euh, parallèle liste parallèle yi nga gis ci président Macky Sall surtout euh, benn Bokk Yaakaar. Mhm. loolu du leen affaiblir tuuti. loolu déjà waxu Macky Sall moo njëkk a dañ parce que ba mu demee Kaffrine. Mhm. woon na buggul kenn def ay liste parallèle. mujj gi moom weddi na boppam. parce que nee na moom ci boppam. autorisé na ay liste parallèle Kolda. Ah, donc moom dafa wax lii wax lële. maanaam wax waxeet. donc dafa mel ni autorité. wala ligne bu leer amul APR jëm ci investiture yi li ngay bañ fii da nga koy nangu fële donc loolu amul benn cohérence politique donc man comprendre ma dara ci liste parallèle yi lu dul. jëm a tasaare voix wu électeurs yi. Mm, voix wu électeurs yi. Mm. kan moo kan moo siy en quelque sorte ku si gagné bu tasee noonu. fi ko raw gàddu la. no APR du ci gañe parce que li mu koy indil rek mooy vote sanction. Euh, ñi ñi ànd ak Mame Niang mm. électorat wu électorat wu APR ànd ak euh, Diouf Sarr. électorat APR la ñi ànd ak euh, keneen aussi euh, seen électorat la bu dee Kolda mhm. am nañ fa ay Mambou Diaw ay Bibi Baldé ak yooyu yooyu yëpp ay voix wu APR ñooy ñooy ñooy ñooy tasaaroo mhm. donc vote sanction la ñuy am mhm. boo demee Ziguinchor Baldé bàyyi na leen donc euh, Assom Diatta ak kële nu mu tuddati Tine mi nga xam ne moom la ñu teg ay ay voix yu dispersé lay doon donc loolu APR plutôt lay affaiblir donc moom ci fichier électoral am rek la mën a gagné ak ci ay transfert d'électeurs am ak ci ay ay njuuj njaaj yi nga xam ne ñoom xamee nañ leen mm. su loolu loolu su loolu moom ñoom ni ñu doxalee nii daf leen jox euh, euh, tort mm-hmm. maanaam joxu leen faveur fenn mm-hmm. ils partent défavoris partout alors wàllu politique dañu koy dañu koy daanele ak Ousmane Sonko ah, ñi nga xamante ni mi ngi yóotu maire Ziguinchor ñenn ñi waroon na ko de waru ko waru ko président la war a xaar ñenn ñi nii bon foog mu natt boppam ci diwaan boobu zigé zigi zigi siggi coor loolu naka nga ko gisee non xam nga politique mhm. conquête la mhm. euh, étape bu nekk dangay am loo téye di yóotu leneen doon rek président laa bëgg nekk mu leer na ni yow présidentiel Ziguinchor bi ñëw na gox boobu yëpp yaa ko gagné. c'est pas un pari risqué. Euh, c'est pas un pari risqué. Mhm. parce que nit euh, homme politique dafa soxla am fief. mu ngi mel ni nga ni Idriss Seck rek candidat la à la à la présidentielle warul yootu mairie Thiès ñëpp xam nañu Idriss Seck Thiès moo nekkoon fiefam léegi après bu ñu génnee ci local yi dañu xool ndax ça se confirme ou pas mais ba fi ñu toll nii Thiès moo mës a nekk fiefam te pourtant il a toujours été aspirant à la présidence de la République donc loolu. daf ko yombal sax parce que yor na yor na président su conseil départemental. ay nitam ñoo yor communes yi nekk ci région de Thiès loolu dafay dooleel homme politique. parce que fichier électoral bu ñu koy wax. ay transfert d'électeurs ak yooyu ñu koy wax yëpp mu ngi démarrer ci euh, ay état civil ak yooyu. Mhm. donc état civil fa la carte di di soso mm-hmm. fa la fichier électoral di commission administrative yi ci ci ci ci collectivité locale yi maire yi lañ koy def donc nga contrôler maire déjà lu baax la mm-hmm. yaa contrôler suuf si yaa joxe autorisation de construire yaa ngi ci école yi yaa ngi ci hôpitaux yi donc am nga ay programme d'aide am nga possibilité am partenariat ak ay ay ay dëkk extérieur mm-hmm. pour jëlee foofu indi sa gox am nga possibilité ne li nga mën ci ci wàllu développement euh, communautaire loolu loolu mën na dalal xelu ki nga xam ne bëgg na nga nekk président am suba mën na ni kii kat bés bu faloo ndegam moo wane lii euh, bu faloo mën na wane lu ëpp à l'échelle nationale donc loolu c'est tout bénéfice léegi loo gis nag dafa am risque homme politique bu wóolul boppam euh, gis nga am na ay homme politique yoo xam duñ dem mukk ci liste majoritaire mm. liste proportionnelle rek la ñuy dem donc du ñu dem euh, liste nationale rek la ñuy dem bu dee bu dee ay ay local du ñu dem du ñu dem ci liste départementale parce que euh, dañuy ragal a natt seen bopp parce que dañuy ragal a jël risque daanu mais homme politique dëgg boo wó boo wóoloo sa bopp da ngay dem élection mhm, donc Ousmane Sonko lu mu def loolu courage politique la mhm. parce que gënoon na yomb mu jël département bi ak commune bi jox ko ñeneen moom toog ni day xaar présidentielle mais loolu du posture politique bu mature mm-hmm. alors euh, bëgguñu sax bëgguñu ci woon yëy yàbbi mais foog ñu cof ko tuuti daaneele ko émission bi mm-hmm. vu émission bi di dox mm-hmm. euh, affaire yi nga xamante ni yaa ngi koy dégg ci affaire de mise affaire de viol ak yooyu donc en tant que sénégalais naka nga ko jàngate waaw loolu euh, opportunité la occasion la pour Sénégal dakkal loolu parce que li ci li ci li ci ñaaw mooy biir na ni comité bi doon organiser affaire Miss yi mhm. da doon yebal xale yi ci hôtelu ay góor pour ñu leen di wettali mhm. jigéen buy wéttali góor mhm. euh, bu ñu demee ba ci tëdd ay viol ki ëmb ça veut dire que wéttali boobu wéttali euh, débauche la wéttali mooy yàlla la kon léegi occasion la pour ñu situer responsabilité yi parce que élection Miss dëppawul ak suñu aada ak suñu cosaan parce que da gis ku ñu ni dañ leen di gëmloo sax ni dañoo rafet. Mhm. fekk ñu ngi sol ay ay ay karawu tubaab maanaam seen cheveux naturels yooyu nga xam ne loolu du cosaanu Sénégal. Mhm. wala ñuy wane seen cër te loolu dëppoowul ak suñu aada ak suñu diini. Mhm. kon tey jii négam état ci boppam moo sóoraale brigade des mœurs. maanaam euh, benn pàcc ci police boo xam ni. day saytu euh, euh, sellaayu jikko yi. loolu laa mën a traduire mœurs asama ak diine donc loolu lu ñu prévoir la ci ci république maanaam am na ay immeuble administratif yoo xam ne sax am na noo fay solo doo fa dugg rawatina nag ay ay éle élection loolu du lu culturel euh, au contraire man agression culturelle laa koy jàppe parce que wane say cër suñu aada nanguwu ko suñu diine nanguwu ko te amul miss euh, bu comité boobu di organiser kese am na ay miss labadoog ay miss lu nekk man sali bi ma nekk foofu am na ay restaurant yu mag ak ay boîte yoo xam ne chaque semaine chaque week-end ñu def ay élection Miss mhm. te loolu ndegam comité national bi mooy mujjee ci ay caaxaan fële nga xam ni fa la raay ba téenee mhm. yooyu tamit ci ay caaxaan rek lay mujj mhm. kon occasion la ñu xoolaale loolu yëpp tere ko waxuma la jooyanti mais tere ko te ci cas bi responsabilité yi ñu situé ko euh, sanction yi ñu war a apporter ñu apporter ko parce que du yoon ngay jël ay xale yu tuuti di leen yebal ci ay hôtelu ay ay ay mukalaf pour ñu leen di wettali loolu proxénétisme la maanaam yàq jigéen la. Mm. donc mais est-ce que gisoon tamit xale yi wala jigéen ñi nga xamante ni ñoo passionné wu ci affaire affaire Miss est-ce que gisoon tamit ñoom ñoo ñoo war a xoolaat seen bopp wala sinon seen waajur yi xoolaat seen bopp ci di leen yabal ci genre concours yu mel noonu. seen waajur certainement. Mm. mais xale li mu li mu bëgg la xam. Mm. ak ñu koy won comme modèle lay jàpp ni modèle la. parce que depuis émission yu ndaw yi seen petit foog ñu tudd ko. Mm-hmm. Euh, la ñuy gëm. Mm-hmm. affaire mode te tubaab lu bëri da koy jaaral ci mode ba ci affaire ngóor jigéen yi sax da koy jaarale ci mode. góor jigéen yi am na ñu solo am na genre pantalon solo am na mm-hmm. genre lu ñuy takk am na ay couleurs yu ñuy et cetera. donc loolu parents yi plutôt euh, euh, laay laay imputer seen responsabilité foofu parce que man tey ji sama doom su solee yenn yi sax man lu ma ko admettre rawatina. mu naa ma dafay dem ay ay ay élection Miss ak ay concours Miss mais bu fekkee ni ay parents yoo xam ni da nga am ay parents yoo xam ni yow li nga mën a indi ci kër gi rek moo lay moo lay intéressé lu dul Miss sax nañu bàyyi seen doom def ko parce que am na ay xale yu tuuti yoo xam ne ñu ngi taxawaalu mm-hmm. te seen ay parents lañ koy yëg kon responsabilité parents yi foofu dañ leen interpellé tamit ci ñu veiller ci ci ci ci ci seen seen doom ci wàllu jikko mm-hmm. ak ak valeur mm-hmm. est-ce jàpp nga ni yoon dina def yoon Euh, Jamra seen kuréel bi la ñu déposé woon li nga xamante ni moom mooy plainte mm-hmm. ci mbir mi ba sax ni euh, ki nga xamante ni moom mooy procureur de la république avant sax ñu koy wàccee ñoom ci information yi nga xamante ni euh, Jamra ñoo ko joxe mooy ni si def na maanaam li nga xamante ni moom mooy information ubbi na information judiciaire ci mbir mi est-ce que jàpp nga ni yoon dina topp mbir mi ba mu sës non yoon dina topp mbir mi mu sës parce que xam nga la mère des preuves c'est mm-hmm. l'aveu mm-hmm. maanaam nga nangul naa yaa def mooy ndeyu firnde soxna soosu sant Badiane Euh, reconnaître na les faits mm-hmm. ni moom moo yebal xale yi mm-hmm. ci suite yi mm-hmm. euh, ku ñu violé yow la neex donc moom yëgalu ko yaramam kooku après jégalu na quoi ah après jégalu waaw ku tooñ mooy jégalu ça veut dire que dafa tooñ donc euh, au moins moom ak collaborateur am seen responsabilité engage na loolu moo tax yoon yoon bu amul matière du tijji procédure procureur bu amul matière du def saisine donc saisine boobu dafa sukkandiku ci loolu maanaam culpabilité boobu nga xam ne ñoom nangul nañ ko seen bopp laata ñu leen di enquête loolu moo tax ñu tijji dossier boo xam ne ala kulli aal mën nañ ko a ragal mooy dañuy jàpp ni soxna euh, euh, am leneen lu nekk si ginnaawam ñu siy tuumaal sax si yenn ministres yi ñoo doon tëddee yi ci yi nga xamante ni yenn ministres ñu ngi ko doon def waaw puissance am mooy loolu rek maanaam dafa bëri lu mu xam lu laal ay kilifa mm-hmm. loolu mooy puissance am rek mm-hmm. donc mu ngi mel ni jaaykatu drogue boo xam ni dakay jaay ay kilifa. ñu ni kii boo ko daanelee mu tudd ni daan naa jaay kilifa nangam kilifa nangam kilifa nangam kooku bu fekkee ni day mucc tout le temps kilifa yooyu di ci bañ a fenn ñoo koy muccal mais ci cas bii moom. Mhm. loolu moo tax euh, euh, Jamra. Mhm. Euh, bu Mame Matar Gueye maa koy félicité au passage. Mhm. daal di porté wu partie pour ñu bañ nëpp nëppal dossier bi. parce que dossier bu amee partie civile duñ ko mën a nëpp nëppal. mais kontaan nañ bu baax a baax ci ci ci émission bi xam nga ñun moom saa euh, toujours dafay nekk mbégte si ñëw ñu jàkkaarloo ku mel ni yow ci xam-xam bi si pertinence bi donc bëgg nañ bu baax a baax lan ngay wax mbokk internet yi. parce que bëgg nañ nag bu élection yi locales yi gën a jege seen ñu defaat beneen émission def. amul problème man je suis à votre disposition. Mhm. di wax internet yi rek ni euh, saa yu ma absenté sur le champ public. Mhm. ñu xam ni man mënumaa mhm. dëkk ci wax. Euh, bi ma toogee 4 mois waxuma. laa comprendre ni ñi. ñoom nekk de bëgguñu sax ma noppi mhm. ñëpp naan lu xew lu xew anamu lu tax mu noppi ndax lii la ndax lee la mhm. mais du dara climat politique bi rek moo tax damay xaar tuuti pënd bi wëri mhm. man ma communiquer leen ci seen koom ak seen ressource parce que am naa ci lu bëri lu ma leen ci liggéey loo xam ne bëgg naa ko partager ak ñoom mais ci moment bi euh, message bi du jàll parce que politique bi da koy brouillé. Mm. te ñun bokkuñu ci élection locale yi loolu rek la mais maa ngi jox dig daje euh, lu yàgg dara. Mm. alors ça a été un plaisir de vous servir Ouzin ngeen doon àndal ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gise ak wax naa leen émission la bi nga xamante ni dafay waxtaane actualité actualité boobu sax d'ailleurs moo taxoon ñu invité ki nga xamante ni euh, mooy Clédor seen di kontaan baax a baax ci nangul bi mu ñu nangul li nga xamante ni mooy invitation bi di leen jox rendez ci beneen émission beneen Guissé ak di bu baax a sama frère sama xarit jéema moo nekkoon ci caméra bi moo nekkoon également ci réalisation bi merci jaajëf.